quotidien ni kay la ñuy ubbi àdduna ko jëmale jamono ji rek ci mbiru ko Amadou Ba di jëwriñ mu njëkk bu gouvernement bu Sénégal jàppee nag fi ñu toll ni moom Amadou Ba moomee daal la ñuy waxtaanee moom mooy candidature ba mu fas yéene am rek ci woteeg présidentielle yu atum 2024 Amadou Ba jàppale nag ni donte tànneef gi am na yoon yi du yomb daal benn yoon ci moom bu ñu sukkandikoo rek ci Sud Quotidien ni kay mi nga xamante ne ni nee na nag moom ca biir Benno Bokk Yaakaar dana jannoo ak ñi nga xamante ne daal nanguñu ànduñu tamit benn nga xam ne daal moom mooy tànneef bi la njiitu réew Macky Sall daal di def bu ko weesoo tamit wàllu ko gouvernance politique ak financière bokk na ci daal lépp loo xamante ne ni moom dana ci sëggalu ni mel daal moom mooy li nga xam ne moom mooy xaar jawrin bi di Amadou Ba Vox Populi ah, yéene kaay ci xët wi la nag nee na bu ñu koy xayma bëri na ci daal ñoo ah, xam ne ñoom seen nag ah, gis-gis wuute na lool ak la nga xam ne daal noonu ne la ñuy doxalee ndax Abdoulaye Daouda Diallo nag dafay féete ca ginnaawam loolee xibaar la boo xam ne nag ni démb ak léegi ñu ngi ko fi biral waaye nag jàpp leen nag ni am na benn jegeñaaleem daal boo xam ne daal jàpp na ne bi lekk xibaar dara du ci dëgg furaas lenn amu ci lu ne mel wuute lool ak li nga xam ne daal moom mooy le quotidien le quotidien la mu daal di fësal jàpp daal ni daanaka xiiroo beeg ngaayoo bi jeex na bu yàgg yàgg daal ndaxte Abdoulaye Daouda Diallo moom ma nga taxaw rek ca ginnaaw ginnaawu Amadou Ba jàppale nag ne démb moom ma premier ministre jot na ko rek recevoir bu ñu sukkandikoo ci le quotidien le quotidien bés bi le jour tey ji xëy na nag waxtaan yi ba léegi jàpp nag ne ab front am na rek ci kanamuk amadu Ba loolee bokk na ci nag te ji law tax mu dal ne fang rek yi di Mahammed Boun Abdallah Dionne ak Aly Ngouille Ndiaye ñoom ñoo doon nekk ñoo xamante ne daal kii ah, di Abdoulaye Daouda Diallo mënees na leen ah, ñetteel bu ñu koy xayma moom Boun Abdallah Dionne sax mënees na nekk tamit koo xamante ne nii ah, lii di parrainage mënees na ko tënk bu ñu sukkandikoo ci bés bi le jour ay yéenikaay enquête moom la mu xëy nag ni fàngatee ji bokkoon ci daal la mu duppee daal la balok outside outsider yi le ndaxte nag Pape Djibril Fall Bougane Gueye Dany Thierno Alassane Sall ba ci ah, kii di Abdourahmane Diouf jàpp leen daal fi ñu toll nii ñoom kenn xamul daal fa ñuy teg seen tànk wala bokk ah, fa ñu war a mën a lëmbe ay candidat la yoo xam ne daal nee nañu après réforme maanaam nag lu yees pecc rek la ñu war a mën a indi waaye bu ñu koy xayma fi ñu toll ni ab wot bu utile la ñu nekk rek di waxtaane ci ca wala lu ni mel la l'info euh, yéenekaay moom damu xëyee tey junni euh, bokk na ci daal mbiru parrainage campagne électorale ak élection bokk na ci daal loo xamante ne daal moom mooy yot année scolaire bi lee mënees ko rek indil ay jafe-jafe bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango Cheikh euh, Mbow jàpp daal ne moom ci mu toll ni Euh, bu fekkente ni daal ñu ngi koy xool war nañu ko gën a ndax euh, ndaxte parrainage ak campagne électorale wile lu ni mel yëpp dana dugg rek ci biir année scolaire euh, bile addu jëmale ci beneen ponk bokk na ci loo xam ne le peuple yéenekaay moom la xëy rek ne fàng tey ji ci xetam mu njëkk rek mu ñeen nag ñaar téeméeri mi nag juróom fukk yi nga xamante ne ni jot nañ leen tamit daal di wàlluwaat ca booru Maroc ñaar nag ci ñoom jot nañu ci rek jële ay gaañu gaañu yóbbu leen ca booru ko l'hôpital ga bu ñu koy xayma tam beneen nag gaal boo xam ne daal bàyyeekoon na rek fii ci réew ko Sénégal yeboon na rek lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom benn ci ay migrants ñoom ñëpp jàppe nañ leen ca boruk Espagne libération yéenekaay moom ci cooloole xëy na naka ne fàng rekk ba tey ji mbiruk Barça wook wala bokk Barça nañu naka jamono ji daal lim gi takku na lool ndax si diggante ñeenti fan ak fukk ak ñeenti fan ci weeru satumbar bi le ah, gën gaa néew rek fukk ak juróom-ñaar ci gaal lañu ah, gis ne bàyyeekoo nañ ci réew ko senegal ñoom ñëpp daal di teer foofe ca booru ko Espagne embarcation rek yoo xam ne bu ñu koy xayma yeboon nañ rek lu toll ci nekk juróom-ñaar téeméer rek ak ñaar ci passagers yoo xamante ne bu ñu koy xayma seen biir fukk ak jigéen ah, ak juróom yëpp ay jigéen lañ buñ koy xayma tam fukk ak juróom ay mineur lañ maanaam nag ñoom ñooñee amaguñu fukki at ak juróom-ñett stade yéenekaay la ñu koy yëndar képpe waxtaane nag ponk bu jëm ci wàllu tàggat yaram ak loole di Sénégal mi nërmeelu rek ci kanamu Algérie jàngar gi nag ba léegi rek dafay wéy ndaxte Boulaye Dia Nampalys Mendy ak Ismaïla Sarr newuñ ci woon loole nag bokk na ci daal lu tax yéenekaay bi jàpp ne ñooñee ñoom manqué woon nañ bu baax a Kourante Aïcha li mooy lu téye ni kaay xëy ci bësub tey jii nii